moo nu ko indil. Mhm. fekk rek ko suñu kanam. fekk ko ci suñu kanam ñu won yoon wi di ñu soññ. Mhm, mhm. ndax euh, ba fi sëriñ bi nekkee ba tey. daanaka lépp lu ñu woote rek. ci daaru. kenn ku ne gis na ni. Uh-huh. mu ca jëf maanaam xel xel xel xel eggu ci. dëgg la dëgg la. waaw kon nag du ñu def lu dul rek ñaanal ko. amiin yéeneem jim ci am. amiin. yàlla na ko ci yàlla dollee kàttanal. amiin amiin amiin. ba nga xamante ni ni mu ko waxee tamit ab tàmbali la ci liggéey bi. Mm-hmm, mm-hmm. waaye fépp fu liggéey bi yegg rek. Mm-hmm. daa fas yéene yegg ak yegg ak foofu ak liggéey bi. kon nag ñi ngi soññaat daal. mbokk taalibe yëpp rek. ngir ñu gën a laxasaayu rawatina ndaw ñi. xam ni lu ci waay def rek. sa bopp nga ko defal. te dëkk bi. ñun ñooy waa daaru. suñu ko defarul suñ ci deful. Hmm. kenn du ci def kenn du ci def. waaw ah, a laxasaayu rek. Ah, ah, waaw sëñ Kara. mu mel ni li nga xam ne moom la moom la DG barkeeloo tàmbalee ko. muy deux cent millions di ñaar téeméeri euh, yàqul dara itam ci institut bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox. bokkuñu noonu la demee rek hmm. hmm. waaw ba tax na moom ñaar yëpp la boole daal. waaw te fas yéene wut a yam foofu. Mhm. waaw fas yéene wut a yam foofu te it euh, dana ci liggéey daal dana ci liggéey. ndax kenn ku ne xam na ni aw turam yegg na fu sore sore sore moom Mouhamed. te moom ab liggéey yaakaanu borom daaru rek la. Mhm. donc lépp lu muy yëngu du yem ci jëmmi boppam ji waaye fépp fo nga xamante ni mën na ko fa yaatalit dana ko yaatal ba liggéey bi gën a yaatu gën a jàppandi ba ñëpp ñëpp xam ni. Eh, buñ ne ñëpp xam xam ni daal borom daaru kenn la ci sëñ Touba. Eh, jërëjëf Serigne Modou Kara eh, ñu ngi koy sant bu baax sëñ Jibril yaa ko dégg. waaw sëñ Modou dafa wax lu lu am solo. Mm-hmm. dafa ne ñun ndaw ñi. Mm-hmm. war nañoo taxaw ci liggéey bi. Mm-hmm. bi ñuy gas tiw yi Daaru Xuddoos jëmale ko Touba ca kanam di ko def. dama interroger sëñ Moustapha Mbar. ni ko lii de mi ngi ñuy fàttali njaareem. bi ñuy gas raay bi mm-hmm. mu ne ne booba sëñ tubaa fi nekk moo ko digle mm-hmm. nun tamit lii ñu def sëñ tubaa fi nekk moo ko digle kon nag ñi a xamante ni tamit jumaa ji tamit borom daaroo nekk moo ko digle mm-hmm. ña jamonoonte woon nag euh, borom daaru ña jamonoonte woon sëñ moo daawa balla def nañ seen participant ñun tamit kii ñu jamonoonteel mooy borom daaru ci ñun kon nag la mag ñu sàkk woon ci borom daaru ñun tamit war nañ buñ ko ci sàkkoo ci borom daaru mi daañ ko ci am kon kon loolu rek laa déggee ci waxam bi muy muy muy am solo muy lu am solo jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw ma sulli waa tey ji la mbooti ceerno yoo xam ne jomb na ku na cib xarnu Cheikh Bamba noonu na Cheikh Massamba caat ma suma mi ndef doon xam Birahim xam ma ceer nooy loxom nday joor ba yaay càmmooñ ba loxo bu nekk ak lam jariñ moroomam nday joor a koy leel ku lekkul faatu càmmooñ a koy laabal ku laabul laatu Bamba nee na ku sopp maam Cerno Ibra Faati defal nii say baaraam Bamba nee na am ngeen ma man Bamba man it xam naa leen te xamul leen ma waaye man xam naa leen yéenay sama saayir tamaay seen baatin yéen a yaram maa du rigu yorkun yéen di man ku leen jaman ma naaj ku jamit ngeen naaj ci baaj sëriñ bat anta ñang yal na fanu yokku ñun ñoo ngi ñaan fanam mi soxna ful ko te ji ma way ndaamale fa daaru ñu naan ko maam Cerno borom daaru jër na jooru maam Cerno lim la gi ci biir yoonu war na nekk way ko xam ne mooy farit danaa la waxtu tuuti ci ay jaar-jaaram borom daaru nga xam ne kenn la fa kër borom daaru nga xam ne kenn la nga xam wali bu mag diina ji moo ko mooy waajuram turwa di Mor Anta Sali soxna su sell soxna Faati Isa Diop mooy ndey maam Thierno askanam de su ko xeeb ma ak ca Kokki aw askanam gënu leen a tekki fa boroxaan la sunu maam ja Thierno gane ci àdduna di gindi xarnu keroog la maam Mor Anta na Seex Bamba yow bis di tey am nga ku tee ñu yan ba gan gi nu am boo doon Moussa mooy Aaron sa ñaan gan nangu na doxal leen seen yoon ba mu matee dal la ko Mamor Anta jëbbal Serigne Ñang boole kook Cheikh fukki fan ak juróom ci weeru Saabaan la Bamba ñëw ci réew mi may baawaan bi bisa waa daaru di say màggal waaju ko màggal yàlla far la jëggal maam Thierno Faati yalla na yàlla ko ay leer te lim fi bay lepp yalla dolli ko ñepp ma se ñaanal señ basir Anta mu yak darul Moxti ñuy dem di ko rang amina amina bi jaay cheikh Bamba kay maggi mam Thierno ak Serigne Massamba barke borom Daaru tubaarkàlla sëñ Sousa jërëjëf no ngi sante bax di ñaanal Cheikh mohammedul Mountakha sun borom yagal ko fi loolu te mu ak wer di ñaanal sunu jambar ju bax ci señ basir Anta di ñaan yàggal sunu borom yàggal ko fi ba li liggéey borom daaru lépp sunu borom defal ko di siyaare sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Awa Balla am tamit sunu borom yàggal ko fi ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp ak borom daaru ak waajur mu baax ma yàlla defal ko sëriñ Moussa noo lay sant bu baax di bëgg lii di ñaan ci darajee sëriñ Touba ñu fekke lépp barke borom daarul moxte jërëjëf eh, jërëjëf eh, Serigne Serigne Moustapha ñu ngi lay sant di la gërëm eh, di am mbégte soxna Kine ñi ngi ñi ngi ànd ak yow jataay bi boobaak léegi Euh, gis nga sëriñ bi ndeysaan génn na teg na xeer yi mi ngi teg xeeru institut islamique bi noo ngi koy ñaanal ci barke borom daaru yàlla na ko yeggale tànn ko njabootu borom daaru mufti gépp waaye sarak le PDG jëf-jëf xam ne lu sëriñ bi nekk rek ànd na ko moom yëkkati enveloppe bu 200 millions muy ñaar téeméeri millions tàmbalee ko te da koy ànd ak sëriñ bi ba mu yegg nag incha allahu rabbi te bu dee institut islamique bi moo ko jël en charge liggéeyal ko boppam loo ci wax aouzu billah bismillah inna waliyallah tubarkalla danoo kontaan sunu xos sedduguy tey mën wax sax ndax ñun ñëpp suñu xol dafa tooy kenn ku ne sa rongoñ dal na sa dënn waaye nag Mouhamed Nazir li ñu koy ñaana mooy yàlla lafal ko cat guddal fanam te may ko wér yàlla ko suñu borom muccal yal na yàlla rus ci moom tubaarkalla maa sha Allah waaye bu amee ngërëm lii kenn du duñu lu tax Alaaji Amadou Sam baayam moo njëkk am gërëm Ibrahima bit loxo mi jur Alaaji Amadou sàmm moo àndan ak Sëriñ Bamba ak maam no kon Mouhamed Nazir bu ñëwee gën ci di gone daanaka mu dim caat def jëf-jëf ji kenn ñëru ko ko may borom daaru muxti ànd ak sëriñ Basiru Anta Ñang tubaarkàlla kaar macha allah danoo kontaan sunu xol daa sedd gis nga lii ab tàmbali la waaye bu ñu demee ba ca kanam dinañ xam li mu yéene ci daaru muxti laaw la ca tubaarkàlla macha allah dëkk bëgg a dëkk nag bu ñu la méréwul mu doy te daaru muxti kenn méréwu ko ay bokkam nag kenn méréwu ko ñun ñëpp moonu dimbali ñun ñëpp moonu silencier nun ñëpp moo nu may loxo tubarkalla macha allah taxawaal wu nu fenn ñëweetu wu nu fenn li ñuy ñaanal Mouhamed Nazirou Samb yàlla muccal ko guddal fanam te may ko wér te lu may def nag allah jaa amul Samb yàlla na ko fekke ak ngunju dërgën sama ndey ji yàlla na fekke lépp loolu daal laa ci doon sànni Moustapha Guèye ndax sama xol dafa tooy tey samay wax sa munta bari sama samay wax tey munta sori munta bari li ma koy ñaanal mucc rek mucc gu ànd ak rek ba li mu yéene ci dëkk bi rek yegg. amiin amiin jërëjëf gi amiin euh, Cheikh mu mel ni euh, ni ñu ko tàmbalee woon léegi. Euh, amoon nañu amoon nañu euh, kilifa yëpp ñu jël ay kàddu euh, sëriñ Abdou Samad imam yëkkati na kàddu sëriñ Bassirou Abdou Khoudous yëkkati na kàddu sëriñ bi yëkkati na boppam kàddu yu am solo bi ñu noppee itam ba jëf ji daanu rek ci la PDG jëf-jëfam jooju njabootu borom daaru gépp kenn ku ci ne itam jëf nga te kenn fas yéene wut a te liggéey bi yëggul kon jàpp naa ni daal nga liggéey baa ngi noonu lu waaye am na ñëw ndax liggéey la boo xam ni un milliard huit cent millions bu lépp dee yegg dana dem gàtt gàtt deux milliards et wala trois cent milliards wala trois milliards kon loolu du liggéey bu ndaw waaye nag la fi war a dem mi ngi ci loxo taalibe yi te taalibe yi ngërëmul sëriñ bi moo leen gënal seeni seen loxo kon nag ñu ngi ciy soññ ñëpp di ci di ci di ci gërëm ñëpp Cheikh. maam Thierno Ibra Faati moom soxna Faati Isa Diop sigal na maami kokki Diop yam soqi ko ba ñëw ko so sigal nu maam njaga isa way juru maam faati isa soxna su baax su gore sa ba ami koso sigal nu muudu faa xuja ma samba faa ak nguro doomi faa ak balla maami waa koso maam Cerno Ibra faati nag naka mu feeñ di mu mag sëñ Bamba daal di xam ne nag key xala doon borom koso mu daal di koy wettili ko ñu ànd tey dimbandi ko yàlla borom bi tey yëgoo ci lépp moog borom koso te booba sax kenn xamagul yoonu murit ndax amagul jébbalu boobee xewagul daam rek borom koso boobee la Cerno fab mbiram jébal Sëriñ Bàmba magam topp ci moom baam ngërëm sanc fi daaru ak koso saqi fukk ak saqi juróom daana ko di yot borom Touba sëriñ si di ko yéem ku nekk naan koso koso saqi fukk ak saqi juróom daana ko di yot borom Touba sëriñ si di ko yéem ku nekk naan koso koso jërëjëf borom daaru euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi ni ñu ko àndee woon yéen rek ci kàddu yi doon taataan ci ñenn ci kilifa yi ak soldaar borom daaru moxti yi ñu ngi ak jëwriñ Serigne Abdou Khoudous Diène di coordinateur général bu islaahu daaree nii yaakaar naa moom tey dafa ànd ak sax àll ndax murit la te tey jëfi pësséef ak pas-pas la njabootu borom daaru muxti gépp waree sëriñ bi woote ñu maasa wuy siku ci kanamam xamal ko ne loolu doxañ rek loolu yi dana am ni mu ko bëggee sëñ Abdou noo ñu jàngatale jataay bi tey ah sëñ Moussa euh, li nga wax rek am naa yëg-yëg boo xam ne tey euh, man naa wax ne mosuma ko am ndax euh, sëñ Tuubaa moom saa bu nekk rek muy gën a wone ak jëfam muy gën a wone tolluwaaye muy gën a wane ne lam waxoon sama tey ju ne day gàccal sama ëllëg Serigne Touba daal ñun daal amuñu fayam waaye ñi ngi sant nag Cheikh Ibrahima Fati Serigne Basirou Anta Niang ci euh, euh, dimbali gii ñu di nar ñoo dimbaliwaat ndax euh, dañ ne ku la bëgg a dimbali da lay liggéeyloo ku jëfut doo doo jariñu te yoonu Serigne Touba yi jëf dong la bu la ci kenn nax da nekk ci ak njub fonk eh, jaamu yàlla yi waaye nag bu dee jaayante gi ngay jaayante sëñ Tuubaa dëgg la jëf rek moo lay may moo lay àggale fi nga fi nga jëm kon nag Serigne Bassirou Anta Niang ñi ngi koy ñaanal liggéey bii nii mu ko nii mu ko tàmbalee xel yëpp dal ci ak tawféex gi ci am ak bis bii mu tombeel nga xam ne bisu bii la maam Thierno Ibrahim euh, gane woon àdduna euh, fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu la la la la la gane woon àdduna bis bii mu di mu di ko daan ko màggal amoon ci ndigalu sëñ Abdou Khoudous ba tey jii di di di fukki fan ak juróom yi yàlla dogal muy borom daaru moxti mu fas yéene teg xeeru jumaa ji nga xamante ne si plan bi 3 milliards moo ci war a dem kon loolu dafay gën a firndeel ne rek mbirum sëñ Touba. Euh, amul tànki ginnaaw tànk kanam la Cheikh Ibrahima Fatil jëfaloon sëñ Touba daal mi ngi gën di feeñ waaye nag man particulièrement am ma ci lu may làqatu am ma lu ma ciy nëbbu Nasiru sàmb dafa jot sëkk waa Daaru Moxti képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Daaru Moxti wala nga yaakaar borom Daaru Moxti boo jullee te ba pare ñaanal sa bopp war nga koo ñaanal ndax euh, Seydina jëfam ji mu jëf tey jëfi Seydina Ousmane jala ca xare Badar kon euh, loolu dafay yàgg jamono ci boppam adduna ci boppam wërsëg bu la ko yàlla joxee te attanoo ko def ci ci yàlla loole wërsëg googu amul benn njariñ moom nag am na wërsëg te ndaw la te yàlla xiir na ko ci wërsëg yi mu ne man moo ma ko waxal boppam lu fi borom daaru mu waxti indi la maam Thierno Birahim moo ko moom kon nag bu ko waxoon ba pare te jëfu ko ñu mën a xam waaye xoolal gàmm gii lim ci jëf ñu naan Nasiru Nasiru tey jii bis bi mu jëf ci jëf joo xam ne yaakaaruma nit dabaat ko ci ci ci ci Daarul Muxti te wane na aw yoon te ñëpp dañ ko cee war a wuy si te fekk si ko fi wërsëg wi jëruñu dara amul benn njariñ dañuy dee rek ba ko fi moom nag la mu waxoon def na ko Serigne Bassirou mooma moom laa toogal ci mu nekk mu ne ma Nasirou nee na fa sëñ Abdoulaat euh, euh, fa Jili Mbay féete woon sëñ Abdoulaat euh, alaaji Jili Mbay féete woon sëñ Abdoulaat alaaji féete woon ko sëñ danaa la fa féete te loolu jëf na ko tey kon nag maa ngi ñaan képp ku yeewoo Daaru Muxti maa ngi sàkku di la ñaan nan ko ñaanal na gudd fan na wér boo am benn ndok boo am benn gàllankoor suñu borom musal ko ci cet ak lépp luy gàllankoor ab jàmm Moustapha tey daal mbégte mbégte mi yaatu tey dégg nga kàddu yi nga xam ne euh, Serigne euh, Bassirou Abdou Khoudoss yëkkati na ko Serigne Abdou mi nga xam ne moom lañ teg ci kanamu liggéey bi ak mboolem ñi fi yëkkati kàddu kàddu ak architecte bi dégg nga itam euh, liggéey bu am solo bi li nga xam ne itam noonu la ko noonu la ko noonu la ko noonu la ko xam ne lu am solo la Moustapha daal comme ni ñu ko waxoon ne lu lu lu ñëpp war a sóobu la ndaw ndaw yi Daaru Muxti comme ni nga ko waxee léegi itam sa waa ji di di di PDG Mouhamed Nassirou Samb na yoon wu am solo te itam képp koo xam ne yaa ngi Daaru Muxti rek nekk ndaw Euh, lii exemple la ci yow nga ñëw ànd ak sëriñ bi liggéey bi def ci sa doole def ci sa ñaq ndax euh, Mouhamed Nassir Samb wan na yoon euh, Moustapha Gueye kon daal moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax ko gërëm suñu borom defal ko ndax gis nañ itam wax dëgg yàlla liggéey bu am daaru moo ci lépp loo xam ne yëngu na fi rek Mouhamed Nassir Samb ci des ginnaaw gis nañ taxawaay bu am solo boo xam ne mi ko ci am kon daal ñi ngi sant bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi doon bàyyi xel partout fépp fooy mën a nekk rek ñi ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di sant ñëpp nag Moustapha di am mbégte bu yaatoo yaatu weetu Cheikh Moustapha waaw jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon teewlu yëpp kon euh, mi ngi noonu li euh, ko doon séentoo sunu borom defal nañu tawféex mbooloo mi daje nañu fi ci jàmm sëriñ bi teg na xeer wi waxtaan naag donga yi yeeweeku na noo ngi ñaan ñu dajewaat fii bis bi nga xam ne ci la ñuy inauguré jumaa ci barkeb liggéeyub maam Thierno Birahim ci kër sëriñ Touba kon ñu ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm di sant équipe technique bi nga xam ne ñoo féete ci wàllu communication bi di jàmbaar lool euh, depuis journée xasida ba Euh, gàmmoog daaru Muxti kenn ku ne xam ne ni daaru am na beneen taxawaay ci wàllu communication te ndaw ñi fi nekk fi la ñu juddoo màggee fi sàkku ji xam-xam ñëw mën nañ ca tudd ku mel ni mbay ak ñi mu àndal ñëpp ñëw di servir dëkk bi ñoom itam dañuy am taxawaay bu mel ni bi Naziru am ak keneen ndax lu baax li nga man ci nga mën a liggéeyale borom daaru Muxti kon ñu ngi leen sant di leen gërëm jox leen dig daje ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.